Idrissa Seck di candidat coalition Idy 2024 ci présidentielle bu ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars dañu nañu koy tatagal ci Agnam tolloog juróomi ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti ci bët gànnaar jàpp penku Dakar foofee nga xam ne dal dinay jëmmal lu meeting de clôture campagne am nar a joxe Idrissa Seck mu joxe woon rendez ak militantam yi ca añam sivol mujj la waxtaan ak junniy junniy doomu aadama yi nga xam ne dañoo ñëwoon toog ci bile bërëb ngiru fësal seen cofeel ndax ca ndorteelu buntu dëkk bi ba ci meeting bi ay militant ñoo fees dell ci mbedd yi lim bi takk loolu ba tax cortège Idrissa Seck sax mujj la yegg ci tribune bi nga xam ne moom lañu ñu ko defaraloon moom njiitu parti réew mi dafa dal di rek toog ci biir otoom dal waxtaan ak askan wi ci noonu militant yi nga xam ne dañoo toogoon ca eh, tribune yi ñoom nag di yëkkati seeni loxo di wane ne am nañu ndam te gëm nañu ko. Idrissa Seck nag dal di leen sargal ba noppi dig leen daje ñaar fukki fan ak ci weeru mars ngir ñu dal di féete seen ndam li nga xam ne gëm na ne mën na koo am. Agnam ci jamono jooju producteur yi nekkee ca gabaar nekk ci commune bu na ca diwaanu Louga ñoom it ak sàkku nañu ci Idrissa Seck fexe ba mun a écouler soble si moom it mu dal di leen dikk ay saafara. des na tuuti ci kanam parce que amu leen conservation soble bi yëpp mën na yàqu tey tey ba tooy xepp loolu nag dañ ci war a ci ay saafara puisque Sénégal war ak moom mi fi doonoon ilimaanu jëwriñ ci nguuru Abdoulaye Wade daal dinay dem tam ca Fanaay foofee nga xam ne lim bu takku lañu ñu nemmeeku ci militant yi nga xam ne ñoo nekkoon ci route nationale bi naka noonee mu daal di amal nag ab caravane.